question sujet les faibles ne vont jamais gagner les forts ne vont jamais lâcher actuellement le système se sent faible le système se sent extrêmement faible Sonko amul ay geewal wax len mu leer motax muy provoquer di waxe nuko nexe di def luko nex boy luñu wax système bi fi xewon dañ koy teggi géwëlu tok muy dox bi dañ koy faxas Sonko mo upp geewal ñooñu parce que ay géwëlu éveil des consciences la am sonko mo upp geewal téeméeri yon geewal bi ki ngay di wax sénégal ay geewal internet cheikh omar diang di entraîneur bi tay ma jox len tay staff staff tay geewal sonko yi tay niñ def ba touch stem bi exploser ko ci bop xalé yi l'état est nul cheikh omar diang ñewul duggal len ci stem bi imam añu Aliou Ndaw ñu jël ko kenn comprendre ñoom abdu ak Karim ngay jël commencé wax isem isem isem ñu dem ñu remontons le temps pakatu dafa ne prip wax kenn comprendre ñun ñëpp suñuy temps bi ñuy wax dañu doon wax ay dof ngeen lan mooy isem mais tey ana géewalu sonko yi nek senegal Macky Sall jël na len tejj len ci kasso bi motax tax amu leen waxal mais Cheikh Omar Diagne ñi est disponible yéen it boo leen wax ak mu wax ak Ousmane Sonko kaba man de wa parcel man sincèrement xawma ban live la def joxe sama numéro mais lima wo ci si nit dama mujjé né bayil len ma message kuma bayil dina tontu kaba Macky Sall xawma kuy kaba je ne l'ai jamais mais waa parcelle ñoo ma yóbbante te dama koy wax waa parcelle nee nañ ndekete Kaba moom mooy seen monsieur le maire honoraire moom mooy maire bi moom mooy maire bi fi xaw ma naka saana nekk Kaba mooy maire bi ndax moom moo yori social u parcelle waa parcelle nag boo moytul ñoom ñooy dem génnee ji ñoom Kaba ci kaso ba bu soobee suñu borom comme diñ nga ko MFDC alhamdulilahi rabbil alamin ñun MFDC xam ñu xamante nañ suñu biir membre bu mel ni Kaba moo su fa existé alhamdulilah safu géwalu Ousmane Sonko yi ba tey ñu éliminé imam Aliou Ndao éliminé ñëpp mais géwalu Ousmane Sonko bu muuma bu gën a mag bi kan la capitaine ture foo leen ko fàtte général Tine foo leen ko fàtte Ndeye Khady Ndiaye mi dékku toute une institution judiciaire

nga foog ne lan moo dawloo xale yi patriotisme poussé mais fa ñu teg tekki ba ndax foofu la est-ce que ñun li ñu teg tekki mooy tekki ba njabootu Sénégal yëpp tas te waajur yee ko tas est-ce que loolooy tekki est-ce que am xaalis wala am alal ban moo ciy tekki am xaalis wala am alal ban mooy tekki. seigne sambay de bi mu ande ak Jili Mbaye jakarlo seigne Bamba ah mom de xam-xam la ñaanon Jili ñaan xaaliss ku nekk seigne Bamba jox nako kon mo lay won ñaar ñoñu bokkuñu pourtant ñom ñaar ñep xol le niveau buñ nekk ñëpp xam seigne sambay Mbaye <laughs> xam Jili Mbaye lan moy tekki ba ñu bëgg tass tas suñu réew mi boy def immigration bu 300 éléments réer lan moy tekki xaalis donné day défar buntu aduna waaye alal ndax dàqul xaalis alal la dàq xaalis alal mbooy bo ne gewelo ñu la ak deglo ñépp may la nopp xaalis mooy boo ne géwaloo ñu ne la mbaay nga ne waay kii moo fi gën te mu wóor la ne waa ji gënu fa kon ndeysaan adduna dafa suufe adduna dafa suufe Macky Sall tey dama jot benn patriote bu jigéen bu jooy bëccëg népp ndeysaan la grande patriote Massa dafa jooy tey boutique bépp woo ma téléphone ma jël ko plus d'une heure d'horloge mu naan ma ndax jar na ndax yàlla lii ndax yàlla lii ndax yàlla lii ma bàyyi ko ba wax julit la nga sa comment ngay sa alxuraan yéen ñëpp xale yëpp dañ leen ne yàllaa wax waaw walla déet dañ leen ne yàllaa wax bible ñu ne la yàllaa wax tawraat ñu ne la yàlla wax mais livre yooyu amul yonent bu ko fekkee amul amul ñu yàlla jaarale livre yooyu pour ñu ñëw wax si amul l'islam islam bi mu doon doxee Ababacar dafa dox san livre Ababacar ci ay règle la dox waa ci ay code de conduite ci ay règle la doxal l'islam ak système am Omar ñëw appliqué système bi Ousmane bi mu yegsee jël l'islam dajale ko def ko libre boobu ana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inni muhammadun moom rek ay góor ñu ñëpp ay diminutif lañu nous tous nous sommes des diminutifs d'hommes ku dul Mouhamed doo góor ñëpp laa si yemal ku dul Rasulaay doo góor foofu sëñ Bamba dara géwal la fa Maodo géwal la fa kër Rasulullah matuñu fa sax ay mindaan moo tax sëñ Bamba tudd xaddimul xaddim xaddim mooy damay liggéey si di wàcc jànk bi Ousmane bi muy changé système lu mu njëkk def jël livre bi yëpp dajale ko def ko alxuraan muy kaamil moo tax ñii d'accord kaamil ñii d'accord ñu kaamil pourtant yéen ñëpp yaa ngeen ni sukkandiku ci kaamil boobu bana ne Sénégal dëkku diina la. kaamil Mouhamed fekkee ko sallallahu alayhi wa sallam monté wulul boppam kaamil déedéet iqara la njëkk a wàccee point final isa jaaxal a tëjee point final ñu dem ci biir bi Bible, c'était avant ou après Jésus-Christ <laughs> Bible, c'était avant ou après Jésus-Christ pour wax leen changement radical bi Ousmane Sonko bëgg a teg arrangé wul système bi te lii du fi lu bees même ci yonent yi la woon da ngay bëgg a ñëw changé benn système gars day am ñu yow Bible 383 ans après Jésus-Christ la ñëw. Le bible am 300 manam 4 siècles après le bible am référentiel de la bible luñ ñu doon def testament ancien testament tu ce tout ce qui Moïse Moïse ngay là. Moïse dong ngay yonent bo xam motax buñ ne Ousmane Sonko ñu tekkale ko Moussa ak tay ma Moïse livre a été écrit sur place par Aaron Rakam Je tax mon livre am a appliqué dox a des pays chrétiens la loi de Moïse la ñuy a Bahamas dem Jamaïque Amérique du Sud la loi de Moïse la corruption boo on dañ lay juger. la corruption dañ lay le Israël lolo, ça c'est d'autres mondes combien de morts vous êtes à combien de morts dans la mer par immigration combien vous avez déclaré combien 300 ce qui est archi faux archi mois de janvier et maintenant nous sommes à 1373 morts par immigration clandestine 1373 13 morts si lo xam nee nañ ñoom dañuy ñew Europe bokku ci ñak muy dox bi fi tok muy dox amu fi de fi ñak toy xet muy dox faala wo yeure bu set faala wo yeure bu salte mo fi am mo tax xale yi di immigré ku ñak tekki immigration bi ngeen ne Macky dafa liggéey liggéey na dëkk bi li Macky liggéey defar na tali eh Macky dafa tabax tabax ak liggéey bokul mën nga am kër gu rafet ci sais nga dugg fa do lek do nan ma xam ndax da ngay yag ci kër ga da ngay fatu fa Macky il a construit le pays mais il n'a pas développé le pays s'il avait développé le pays les jeunes n'allaient pas quitter le pays entre construire et développer c'est pas pareil encore une fois il a construit euh, ça, il a construit ça mais développé développé, lan la développé de de vie Il a cher il a développé am inondation ba développé, il a développé quoi au juste wax ma ko a ñi ne warul dem lan développé Il ne du dem eh un intérêt ci a Je il a sama politique nit ku est du dem ba a dama calculer calculer di ci ay live bi waxtan ak ay nit le 15 bi depuis le premier jour nee du am Motax fofu man retardé après ci stratégie buñ fay duggé gédja way def ko mais man depuis premier jour bi ngeen le 15. dem len sama live nous du am du am point final on passe à autre chose Sonko day def anniversaire am le 15 dañ ko war a investir le 15 pourtant Aïda Mbodj investir na semaine passée ñëpp investir nañ semaine passée ba tey sama candidate man moo investir tey moom <laughs> tey dama xam ne tey nag am nañ tey candidat muy kin Biz waa léegi yéen Queen Biz sañu woote conférence de presse toog gëm boppam def conférence de presse toog ñu ne tey Ousmane Sonko amul droit boobu yéen waa Pastef amu leen droit boobu ba pare fa lañ koy defee géejewaay ñu né Ousmane Sonko wax naan naa la ko demaat leen samay live chaque discours Sonko bu ko défé ba paré suma ma lum lu wax leen wax sukkandiku nañu ay kàddoom pour tek tel dossier alhamdulilah ba ko gouverneur génnee tay samay wax lim mu leen wax c'est clair et net Ousmane Sonko mo né won xawma lan day installer kaw kon réew mi buñ ci défé manifestation affaire force occulte lañ leen di tégal ak ñeneen ñep kenn du manifester bul sonn ci destitution Pastef lañ jëm. pourtant bi ma koy wax ñu bëri dañ ko fagoon ay film laay wax mais tey yegg si na ñëpp ñu ngi ciy débat damay reesaay ma ne gars yi daal je pense que des fois dañu da ngeen di demee sentiment ba doo leen nangu dëgg te comme man aw ma sentiment ci politique aw ma sentiment ci politique soit dañuy accepter affaire bi affronter ñuy xeex ñi nekk ci kaso bi génn mooy suñu staff bu ñu wax suñu coach Cheikh Omar Diagne el tactico moom moo remplacé imam daw ci ban bi ñu ñak sama nday li nga liggey dafa reuy tay la tok révisé wat say life mo ne ah kon Cheikh Omar Diagne appuyé wul kese si islam il est ouvert il est ouvert d'esprit mais nekul kessé ci islam comme niñ mako expliquer won woon sax la fi si la rek man naaw ne len fi kenn du fi def régime islamique non non non eh Cheikh Omar Diagne lenen la len waxo j'ai tout lu tey déglu naa laay fam yu bëri ma may dama nekkaat di def révision parce que xam nga rek nekk ma woon si yu bëri ndax man ci combat bi laa nekkoon di avancé kii naan leen booy fii lañ jëm fii lañ jëm fii lañ jëm géejewaay Macky Sall buñ ko songee waxoon naa leen ko de élection 2024 teg leen ko à côté Sonko buñ demee élection si moom la buñ demul élection day fekk Sonko bokkul Sonko si moom la lépp dépendre waxoon naa leen ko keroog bu ñu demee 2024 moom la bu ñu demee 2026 moom la nay leer rek. moom waxtaan ci jaww ji ça ne l'intéresse pas ndax mënatul dellu ginnaaw te ñu ko investir par force ndax ñëpp xam nañ ne moo nekk ci dëgg. dossier bi nag ni ma leen ko waxoon laa leen koy waxee Macky da leen ne gérer leen seen Ousmane Sonko. Dior Diagne nel Antoine Diome génn si ndax maire mu ngi fii tëdd feebar depuis 15 jours man maa waxul rek dem naa ba hôpitalam xam naa si région parisienne bu mu nekk xam naa fépp fu mu nekk biir France joor maire a ngi fii tëdd mais na tane ak jàmm maire madame Diagne na tane ak jàmm ndax suñu maire la ñun ñëpp. mais dama leen di wax benn affaire li ngeen di waaj nii semer le bordel yóbbu dëkk bi état de siège xam nga door waxoon na ko gars yi bañ te xamuñu ñun fu ñuy réññewee fan la nit ki bu ñu xamul foo bokk saa yi da ngay wax ñëpp critiqué la te man ki ma gën a critiqué Sénégal moo tax doon <laughs> duma ko sax faale mooy xalaat TV nit da ngay wax saa yi ñuy yàq sa der te xamuñu la naan Macky lay liggéeyal te pourtant su ma waxoon kan moo ko moom ñëpp dar seen gémmiñ mais on passe man du ma yéen loolu du sama objectif combat sambi nag tool na foo xam ne moment bi Sonko xool ak yi wër nañ ko ndomb ba pare de wër ndomba yéen jeunesse bi yéen ko si mën génnee yéen jeunesse bi yéen kese kese moment bi man dootul xeexu Pastef bu dee Pastef dañuy ñàkk ndax Pastef bu ñu xasee jàpp kenn mu sant sant joolaa rek waa Pastef dañuy daw génn si wala ñu la jàppee léegi état bi loolu la xewal bu la jàppee bëgg la jiiñ danga ngaa raas dala naan rebel nga rek waa Pastef yëppay daw génn moo tax xeex bi du xeexu Pastef du xeexu Pastef de maa ngi waxaat yéen la jeunesse yéen ñi bañ dem immigration clandestin yéen lay waxal yéen la jeunesse yéen ñi bëgg a écarter yi gis ngeen système bi ñëpp a ngi commencé kaas géwal yi xaj yi muus yi ñëpp ngi commencé di wax ñepp a ngi wax parce que ñëpp ay jàppatu xam nañ ne li fi amoon doot fi amat serigne seck ñepp ngi wax ndax fit yep dem nañ ndax lan tubab bek américain bi xam nañ ne candidature Sonko ken mun ci dara te man gëm na ne États-Unis mënul imposer Macky Sall candidature Sonko c'est impossible même la CPI ne peut pas imposer à Macky Sall la candidature de Ousmane Sonko c'est impossible Sonko ben garde la am ben garde la am c'est la garde républicaine